monsieur Abdoulaye Seydou Sow euh, empêché nga xam ne moom ci boppam moo buggoon ñëw teewalee ko boppam ndax euh, dayo bi nga xam ne euh, son excellence Macky Sall jox na ko travailleuses yi ak travailleurs u Sonatel alors ma fekk fi nag direction boo xam ne ci waxu secrétaire général bi ak euh, directeur des ressources humaines bi si li ma déggi seen wax may ñoo xam ne ñu disponible lañ ñoo xam ne nii euh, ñu taxaw lañ pour jàppalante ak seen premier partenaire sociaux yi mooy les syndicats ma déglu aussi les syndicats muy ñu nekk ñoo xam ne euh, les secrétaires généraux muy ñoo xam ne ay nit ñoo xam ne ñoom ñoo gën a bëgg même la direction luti de travail qu'ils ont muy Sonaged ma ne kon sant yàlla alhamdulilah kon tey xëy na def nañ ay revendication peut-être mantu ñàkk parce que fête première mai journée revendicative la parce que à l'ini ca départ ba ca njëlbeen euh, dafa am ñu doon casse seeni droit pour am euh, euh, nu mu tuddati juróom-ñetti waxtu yi ñu di ko liggéey par jour ñu am ñu ci boom ñu bëri dafa naa et j'ai na ko léegi loolu moo indi tey bu ñu toogee ak autorité bi danañu danañu def seeni i doléance mais ma leen di wax ne Sonaged day door a juddu Euh, bërki démb la c'est vrai que dañoo dafa dafa dafa dafa dafa donn benn structure bu ñuy wax UCG mu nekkoon une unité de coordination ci benn direction ci benn ministère mais tey euh, jëmmal bi ko président de la république bëgg a jëmmal te état bi nekk benn actionnaire bi lépp ci ay fonds yu ciy génn état bi moo koy joxe ma bëgg leen wax ne leen nañu muñal direction bi parce que ñoom am na ñu yéene lépp loo xam ne seen tawat la ñu ànd ci ak ñoom déjà li leen loi bi may li leen convention euh, euh, collective yi may ak convention collective interprofessionnelle bi sax may ak lépp loo xam ne nii ne peut-être ñoom ci seen ay accord d'établissement yu ñu mën a teg la may de incha allah je sais que direction bi dalee leen ko jox et nous derrière le conseil d'administration lu ci ñëw ci lu ñu war a valider danañu fexe ba valider ko parce que liggéey bi ngeen di def dañ leen war a jàmbaaral jaajëfal te su ma ñëwee fii sax c'est pour wax leen ne président mu ngi leen di jaajëfal ministre bi mu ngi leen di jaajëfal am na mbégte ak kontaan ci vision bi mu teg muy Sénégal propre yéen a ngi koy defee ni mu ko bëggee tey kon yéen amul kenn koo xam ne rek da ngeen génn ci parce que yéen bu ñu bu doon wax tey président de la République am na politique yi muy développé Sénégal bëri na macha allah yaatu na mais yéen kenn jiituwu leen ci réussir bëgg-bëggu président de la République donc euh, euh, le personnel les partenaires syndicaux euh, la direction may jaajëfal aussi ci taxawaay bi ci EG wax na ko chargé de comme bi liggéey bi rafet na. tey nag dañ fi ñëwoon fii ci CICES ànd ak travailleurs yi ñu doonoon daanaka junni ak juróomi téeméer mille cinq cent personnes ñoo fi nekkoon àndoon nag ak juróom-ñaari syndicat yoo xam ne ñoom it ci Sonaged lañ bokk. biñ fi ñëwee nag tey dafa doon loo xam ne nii dafa am solo ci dund secteur du nettoiement mais également ci dundu Sonaged ndax Sonaged. biñ ko créé installé ko ci vingt 22 décembre 2022 ba léegi bii mooy première fête du travail boo xam ne ni fête dañ ko ak les travailleurs mu doonoon occasion boo xam ne ni dañuy ànd ak ñoom feetu mais ànd ak ñoom également déglu ñi nga xam ne ñoo leen représenté muy les secrétaires généraux ci doléances yi nga xam ne am nañ habitude daan ko présenter le euh, le l'employeur mais tey li ci am solo mooy dañoo am bébé boo xam ne dafa am changement changement mooy doon nañ société anonyme am nañ président conseil d'administration am nañ ay administrateurs yoo xam ne secteur yëpp yi nga xam ne nii dañuy laal ci wàllu mbalit bi représenté nañ leen fii kon nag buñ ci dajee di waxtaan syndicalistes yi indi ay doléances waxal ci turu ñi nga xam ne ñooy liggéeykat yi danañ leen déglu buñ leen dégloo nag danañ leen oo ci aw waxtaan li nga xam ne ci daar daar moom danañ ko mën a saafara incha allah danañ ko def li nga xam ne nag moom it day day nekk day laaj néggandiku danañ néggandiku li nga xam ne ci jëmmi jamono lañ ko def loola aussi danañ ko def waaye li ci ëpp solo mooy déglu nañ leen te dégg nañ leen te li ci ëpp solo également mooy ñi nga xam ne neuf cent cinquante six euh, journaliers yi nga xam ne dañ leen a embauché lu am solo la waaye également cent quatre vingt parcelles yi nga xam ne dañ koy euh, secretaire général muy euh, nu mu tudd le directeur général jox na ko le travailleurs loola aussi lu am solo la ndax daf ne man la cee ëpp dama koy jox jigéen ñi kon nag loolu aussi yokkute la te buñ fàtte ne ñaari at ci ginnaaw bi nga xam ne Covid bi ñëw na yokku nañ salaire ku nekk yokkaloon nañ la daanaka ñetti junni yu teg juróomi téeméer loolo nag boo ko calculer ci mbooloo mu toll ni fukki junni ak lu tab ay xaalis bu bëri la mën naa bañ a nag bëri ci nit ku nekk waaye buñ ko boolee dafa doon loo xam ne lu rey na kon nag loolu moo doonoon taxawaay bi tey biñ fi ñëwee nag ànd nañ ak suñuy kilifa yi nga xam ne ñoom ñoo représenté président de la république mooy président du conseil d' administration Mortalla Cissé mais également ànd ak ñi nga xam ne ay administrateur lañ te ñoom it ay mbootaay yónni leen ku mel ni Alassane mbay di maire de Porokhane représenté fi association des maires du Sénégal ak euh, Wuriba euh, Amadou Wuriba mi nga xam ne moo représenté ministère des finances ak ñeneen yoo xam ne ni ci yeneen kuréel lañ ñëw dikk fekkee waxtaan bi déglul seen bopp day yombal ëllëg ñun direction générale buñ defee ay projet yoo xam ne dañoo bëgg ñu valider ko ci conseil d'administration dana doon lu yomb loolu nag sant nañ ci yàlla ndax ki nga xam ne mooy jiite déglu na ta ànd na ak ñi li nga xam ne wax nañ ko kon nag loolu moo doonoon taxawaay bi feet gi feete nañ ci solo nañ ba rafet euh, dikk nañ défilé nañ waaye waxtaan nañ déglu nañ leen buñ demee ci ay fan nag incha allah li nga xam ne mooy carnet de doléance yi nga xam ne syndicat yi wa joxe woon nañ ko danañ ko liiraat social bi aussi wax nañ ko léegi le directeur général Mass Thiam ci coobare boppam ci alalu boppam may na ñeenti billets Makka yoo xam ne nii waa agent yi lañ ko jox danañ xool nan lañ koy def tirage ci seen biir waaye am na yeneen ñaari billets yoo xam ne dañ ko maye mooy suñu mbokk yi nga xam ne ay chrétien lañ pour ñu war a mën a dem euh, Rome daal di def seen pèlerinage muy juróom-ñaari billets euh, pèlerinage yoo xam ne directeur général joxe na ko aussi lu am solo ndax boo doonee kilifa ñu yaakaar la nga jiitu ca yaakaar googa am loo cay saafara boo leen diggéeneel li ngeen wax dégg naa ko te ko saafara kon loola dañ ko gëm